góor day am doole waaw waaw. waaw waaw te clip bi ñoo ko. ah clip bi xaar ci bi. clip bi ah góor day am doole. mais Pape mais Pape nga may ma tuuti rek tuuti rek. tuuti rek waaw tuuti rek Pape. c'est que benn benn affaire dafa am. waaw góor am doole. waaw da nga koo way. ndeysaan maanaam mu def benn it. dëgg la ci maanaam réseaux sociaux yi. addina bi ñëpp mbër yi ñëpp di ko salans inspiration bi Pape waaw Babacar maa ngi lay nuyu di leen félic félicité di nuyu sa frère Lamine di nuyu ku mel ni euh, Fadam Fadam Touaw Bour Guéwél waa Dakar Actu Dakar Buzz presse bi ñëwoon yëpp déplacé wu Sénégal ba Gambie maa ngi leen di nuyu di leen félicité di nuyu usi sama rak Baye Ndiaye Alburax ak magam Aziz Ale di nuyu grand Luc Nicolaï di remercier ñi ñu fekkoon Gambie yëpp li ko dalee ci président bi Adama Barrow sama xarit yi ñoom ne Fall ñoom la Lamine Ngom ñoom Lamine Thiam champion bàyyiwuma kenn daal ndax bi ñu demee Gambie teeru nañu teral nañu di félicité aussi mbër yi vraiment toj noon Gambie Tapha Tine Eumeu Sène mm-hmm. Modou Lo Ama Baldé mm-hmm. Kewel mm-hmm. mooy yu ñëwoon ñëpp vraiment délégation bu jógoon Sénégal yëpp dem nañu Gambie def fa ambiance bu am importance mais Babacar góor day am doole li ko tax a jóg mooy waaw ñun ay euh, leader d'opinion lañu dañu war di sensibiliser te sport dafa baax si doomu aadama ndax sport euh, non seulement day ànd stabilité ci nit dëgg da lay jox confiance da lay jox euh, yaakaar ba pare da lay may wér donc loolu moo waral à chaque fois su may génn rek damay def morceau boo xam ne jeunesse bi dañ gis seen bopp parce que damay bëgg su ma nekkee plage di gis xale yi ñuy génn di dem géej di di entraîner la ñuy dem ci salle yi di entraîner ndax loolu dafa am solo ci réew ndax sport dafa baax si doomu aadama sport dina tax sa conscience day dal da lay may stabilité da lay may tranquillité ba pare da lay may wér te réew ah, ah. xale ko yor gérer ay responsabilités am. Mhm. faaw mu am kattan. Mhm. kattan nag amul dara lu ko gën loo xamante ni mën nga ko jëlee leneen lu dul sport. ci sport rek nga ko mën moo joxe lépp. Mhm. donc vraiment maa ngi sensibiliser xale yi. ñu dem ci plage yi. di dem ci salle yi. di entraîner di defar seen yaram. ndax nag loolu mooy avenir réew. loolu mooy avenir réew sa diggante ak Amadou Ba. Amadou sama nijaay la. sama tonton la euh, maa ngi juddoo usine ñaari tali ko ñu bagaar. moom mu juddoo foofu. moom ak suma nijaay Saliou ñu ngi ñoo bokkoon classe. Mm. depuis école élémentaire. école route de Puy. Mm-hmm. li may wax ku ko dégg ku ko dégg wala nga seetaan ko rek. Mm-hmm. di nga ko xam. Mm-hmm. donc suma diggante ak président Macky Sall. kenn du ko miin. kenn natable wu ko. muy sama xarit. di sama mag. kon te bu taamu Amadou. jiital ko. donc man en tant que koo xam ne dama bëgg président bi en xam ne Amadou sama nijaay la ñu bokk usine ñaari tali mm-hmm. ah, ma ñëw accompagner ko mm-hmm. jàppale ko góor mais Ama Baldé Modou mi ngi génn ci bi mais Pape Ama Baldé Modou Lo soxla nañ fa sa kaddu parce que coow li bëri na ci dëkk bi Ama Modou mais lamb il faut waaw foofu tamit faw gis nga lamb Babacar waaw pour mu neex il faut mu am xiiroo ngaayoo jàppante bàyyil fii xëccal yaa ngi dégg waaye nag sport la Ama ak moo du ñoo bokk ndey ak baay bés bi dina weesu mhm. ba ñoom ñaari di demlante di defante ay teranga dañuy ut xaalis rek ku nekk loo am nga nga bëgg pour yóbbu sa kër mm. mais du ñu ay ennemi mm. du ñu ay noon du règlement de compte mm. adversaire la adversité la sport la lamb la foo ak ree képp ku ci yàlla jox ndam nga jël ku yàlla joxul nga muñ mais ñoom ñaar ñoo bokk ndey ñoo bokk bàyyi ndax diggante parcelle ak Pikine dara lu ñaaw xaju fi ndax ñaar ñaari dëkk yëpp dañuy demante waaw c'est le Sénégal ki gën ñoo ngi dégg ci tàngoor foo koy fàttali l'homme de Sénat suuf waaw le président de tous les présidents parce que li tax eh, mooy Macky Sall fi la ko fekk président Macky fi la ko fekk ah. yaa ngi dégg te day dem bàyyi ko fi bu soobee yàlla kii jiitewaat réew mi fi la koy fekkaat ne duma sa morom war nga ko mën a gëm moom du jànjee ko moo moo gën ci dëj waaw moo gën ci soxla yi moo gën ci famille lamb waaw xaar xaarul kii nii la mel xaarul kee la mel képp koo xamante ni xam na sa soxla ndeysaan su defee ba mënatul day dem aji ji macha allah loolu am na jox la ku mel noonu nag waa lamb dañ ko war a jël téye ko ak seen fukki loxo mhm. téye ko ak seen fukki loxo. Mhm. yàlla na ko yàlla yàggal may ko wér. mu yàgg di dox mission bi muy dox. am na solo koo koy perpa la. aja Lamine xam nga tey euh, Lamine bi tey méridien. Mhm. pour si euh, signature ci wàllu promoteur yi. Mhm. barki démb ñëwoon ngeen. sàmm Ndiobène Ka. mu defoon mutuelle santé bi. Ablaye Seydou Sow yebal ko pour ñu defar coopérative habitat tey ñu ngi signé pour promoteur yi. am na leneen lu des na loo xam ne employé la. muy Malick Ndour boobu yor ko. Pape moom it ñu ngi koy wax mu na ñëw keroog ñu waroon na ñëw yebal directeur cabinet bien sûr na ñëw joxe emploi yi ko président dégg président bu la santee dara da nga koy def. ak ñu yor terrain yi waaw. terrain yeeg yëpp nañ gaaw ñëw parce que président moo leen ko sant. dañ hmm. gaaw ñëw. Hmm. Hmm. loolu nag la ñuy xaar. tey gërëm nañ premier ministre ñëw na fi. wax dëgg yàlla gis nga tey ñëpp ñëppatu lamb yëpp daje nañu. ñëpp kontaan nañu muy lutte traditionnelle. muy lutte avec frappe ñëpp bëgg nañu. loolu la ñuy ñaan yàlla liggéey bi am solo. la fois passée ñu ngi tase woon fële nga xamante ne moom mooy autorité bu Babacar. bien sûr nga def critique. waaw euh, bi nu mu waaw tey ndax gis nga ni ay avancement am na. ah moo tax ñu ñëw. Ah. keroog ba mu leen waxee. waaw moo tax mu gaaw a ñëw. parce que aussi président bu waxee dara da nga koy def moo ko euh, ministre ki euh, Pape Malick Ndour ñoom ñaar rek a te loolu mooy yow Pape Malick Ndour mënul nekk si télé yi naan day défendre président. yow booy défendre président kay bu waxee kàddu boobu nga koy défendre. ci hmm. liggéey bi. Hmm. parce que président kenn du ko war a ko fen lool. président de la République. bu joxee consigne. Hmm. da nga ko war a def. mais waroo fen lool président de la République. même yow tey même boo fa nekkul woon dégg tey moom Pape Malick ma nga toog ba ñuy wax employé ma nga toog bi koy président séddale ma nga toog moom nii Samba Ndiobène Ka def ak Ablaye Sow noonu la waroon def. même pas une semaine mu ñëw woote pour def liggéey bi jox emploi yi euh, ñi nga xam ñoo ko moom. kon da ngaa gis ne dafa teel defal moom Pape Malick Ndour par rapport ak li ñu ko sant. dafa teel defaloon Thérèse Faye teel defaloon léegi ñoom ñëpp ñëw nañu. ok parce que wax bi da si am solo. waaw mais 500 millions yi yaakaar ngeen danañ ko joxe. ah ba ñu joxe signé nañ ko de bu ñu ko joxee itam ñu waxaat rek adduna bi da ngay wax de. da ngay wax li ñu def nañ ko les promoteurs yi ñu jagleel 500 millions yi promoteurs yooyu boo amoon loo leen di wax ñoom. parce que 500 fay dañ leen leb hmm. lebal. ah may atte bor fay. Hmm. dañ leen lebal nañu fay. Hmm. ku si leb. fayal ku si leb bul leb waaye ku bëgg jël xaalis bi xam ne yaakaar ne doo fay. da ngay fay farfas. fay farfas daal pour yow. boo dee di nga fay boo dundee léegi président le premier mooy suba incha allahu rabbi dimanche euh, Kajoor production mooy ubbi saison bi mooy Ibrahima Diop ci Mama Lamine ak Gora Sock tey boo amoon message booy lancé monde lamb ci sason bu bees bi ñu war a dëgmal waaw suba yaa invité d'honneur Ibrahima ah loolu de Lamine lu neex la Ibrahima juumul kon waaw waaw parce que yàgg na fi tëgg ay làmb ñu dem ba si kanam ay tolof tolof am. xale bu baax la. vraiment opérateur économique la. ñu investir si làmb ak feneen ak feneen. kon kooku tey képp koo xam ne yaa ngi si làmb ji war nga ko jàppale. dañ koy ñaanal yàlla gudd fan ak wér suba incha allah maa ngi sa làmb ji. li may ñaan mooy mbër yi rek. ku si nekk bëreel ful ak fayda xam ne làmb la ku daan daan ku daanu xam ne yow ku bañ a daan da ngay bañ a bëri képp koo xam ne yow tey am nga am nga mbër booy supporté bañ mu daanu mhm. toogoo sa kër xam ne yu mu yàgg-yàgg bés dina daan bés dina ñëw mu daan président kontaan nañ ci yow waaw ñuy ñaanal làmb ji jàmm sa garaam bu rafet la waaw mais ku la sañ président waaw bu Fass yomb na koo ñawal. waaw mais soxna si nag moo ko jënd. ah moo ko jënd mais ku ñëw ñëw bi laa wax. kenn du Abba président <laughs> waaw ñaw bi rafet na de la. yéen waa koy jabar wan nga xëja daana yéen waa koy jabar wan nga xëja way leen lamb ji rek loo ci mën a dégg nañ ko way. ak lu mën a xew daal Mamour nañu way lamb ji.